Mundo Deportivo la Corogne mu dikk ci Barcelone priorité bi nga xam ne am na ko ak Bernardo Silva moom rek la bëgg temps yi nag ma nga koy dox danañ ci dikk marka yëgle kaay défense boo xam ne daan nërmeelu ci Real Madrid loolu la dikk juróom-ñetti bi jël nañ ko ci diggante bu ndaw Ousmane Dembélé ci ass yëgle yi turandoo ñëw na ci lu yaato yaatoo beneen turandoo boo xam ne mi ngi taxaw di alaaji Malick saar kilifa gu mag gi nga xam ne mooy buuru Sandaga bu àndee dogalu borom bi borom mooy yu baax yi benn problème la am muy jaay lu baax ak original ak yomb lekkol lool loolu rek mooy jafe-jafe waaye amul beneen jafe-jafe gars yi gaaw leen def seen i commande comme ni ngeen daan defee Catalan yeeg Madrid yi ak ñi nga xam ne ñooy waa Arsenal ba ca waa Al gars yi jaay mooy ñëpp ña nga daw wuti ko ci ndax jëf ju baax ji muy def jëf ju baax mënta paase jaay lu yomb te original commencement bi ci yëglekaay yi Bernardo Silva lay doon mi nga xam ne moom moo nekk ci xëtamu njëkk ci suufu yëglekaay bi kaay bi nag xeeb na ko lool muy démbale waaye opération bi nga xam ne Bernardo Silva gone Barcelone ni léegi nag taxaw nañ ca temm te jublu nañ ca am nañ yéene andi ko foofee ca Barcelone am football fa ndax loolee liñ ci bëgg ak ki nu bëgg mu jàppale leen ci moo nekk ki nga xam ne moo nekk kii di Pep Guardiola doonoon entraîneur Barcelone di Catalan te nekk fële ci Manchester City loolee tamit gaa yaa ngi ko koy daagaanu pour lépp mën a yoon lépp man a tegu ci yoon bu ko defee ñu jënd gone gi fekk na booba Paris Saint-Germain kii di Ousmane Dembélé Ousou Boy ah, ma nga di waa di xaatumu contrat boobee moom la as baraj barajee ci suufu yëgle kaayam ah, xam le ni ah, gone gi dana signé tey jii wala boog tey jii dana finaliser lépp loo xam ne jëm na ci contrat boobee fii ci as yëgle kaay waaye andi na kii di Ancelotti ci digg xëta mu njëkk moom mii di as yëgle kaay nga xam ne daanaka wax na ca lu bari waaye Marca moom li mu ci yëgle kaay bi day xam le ni Real Madrid yi jaaba jonge gi nga xam ni gars yi ñu ngi ko koy jaaba jonge défense bi maanaam day seen maanaam juróom-ñetti bii séngam yoo xam ne daanaka jël na ko ci diggante bu ndaw ndaw loolee yaakaar naa bu ma juumul ñeenti match séngam la fekk Real Madrid jeexal na li nga xam ne mooy pré-saison bi waaye nag pré-saison boobee moom boobee moo gën a yées ci yi nga xam ni moom la def ndax dara doxatul foofu